maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jël nuyoo bi ak ni mu sell ak fi ma ko aj ak fi ma ko teg teg ko ci loxol alimaam raatib Seyid Bodian mi nga xamante ne moo ñu dalal tey fii ci Bignona jël sama nuyoo jox ko suma wasila yi nga xamante ne ñoom laa toogal ci sama ginnaaw Serigne bu Bousso jeg Mbacké ak Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké honorable député mais jël sama nuyoo jox ko ki nga xamante ne ci na tey ci bâche bi ma toog moo fi représenté sama kilifa di le président Abdoulaye Wade muy la docteur Tito Tamba makaa nuyu bu baax di ko ziyaar yéex a egsi rek ci cérémonie boo xamante ne cérémonie métit la cérémonie naqar la cérémonie jooy la ndax suñu àndee ak ñi nga xamante ne comme man comme ñi ma àndal ci jigéen ñi seeni doom ñoom lañu takk tey ci photo bi te ñeneen seeni doom toog nii ñi ko def walla ñi ko xalaat seeni doom nekk ci seen biir kër du mun a neex kon suñu njaboot bii nga xamante ne ñoom lañu taxawal fii ki ci mag fanweeri at ak juróom rek la am xanaa moom moo doon war a am tey soxna bay am ay doom ñu ànd ak ñoom ñëw di leen ñaanal fii kon tey xam ngeen ne Sénégal moo ñu fi indi ñun suñu taxawaay tey taxawaayu député à l'Assemblée nationale du Sénégal la Sénégal fal ñu Sénégal rek indi ñu fi te ñun xeexu Sénégal duñu ko bàyyi ak kenn dañu koy yenul suñu bopp ñu ñëw tey ci la verte Casamance àndandoo ko ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk seen ay njaboot di jooyandoo ak yéen fii ci suufu Casamance bi te ngeen gën ci mettile waaye li tax ngeen gën ci mettile mooy lu yëngu li ko yëngal moo ko ëpp doole seen doom muy le président Ousmane Sonko moom la ñu laal teg ko injustice ay doomam jóg xeex ba tuur seen deret àndandoo ko ak ay doomu ñeneen kon ñuy ñaan doom yooyu seen xeex boobu yàlla bu mu nekk lu wasaa yàlla bu mu wasaa li tax slogan bi neex ma votre sacrifice na sera pas vain yaakaar naa ni ñun ñëpp dinañ àndandoo xeexal Cheikh Coly xeexal Mansour Thiam xeexal Baye Cheikh Diop xeexal Cheikhouna Ndiaye xeexal Bounama Sempa xeexal Pape Sidi mbay xeexal Moussa Dramé xeexal Abdoulaye Bari xeexal Famara Coly xeexal Cheikh Wade nga xamante ne mu ngi faatoo Dakar xeexal Massiré Gueye bu jàmm gën xeexal Sadio kamara bu jawbe xeexal Chérif Abdoulaye Mané bi dëkk fii ci Bignona ba nga xamante ne fi ñu tëdd li ñuy wax la terre leur soit légère ñoom bu ñu gañee seen xeex rek ñoom la seen terre di légère te yaakaar na xeex bi ñun ñëpp ñoo koy bokk asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf honorable député Mame Diarra Fam ñu jox kàddu gi